Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu sëñ Abdourahmane ñu ngi lay laaj maanaam ku faat waxtu yu bari loolu ni su koy fayee loolu laaj. jërëjëf sëriñ bi julli sunu borom moo ko farataal ci jaam ñi li tax nit ki ame borom julli mooy ngànt Fatte wala yu nu demee waaye sàggan amu ngànt fàtte woo dafa dara ba julli la ci ñaawteef fii gën a mag la bokk jullit bu ne war na koy moytu su yàlla dogaloon nag nit ki ay wari julli dab ko yu bari ba bëgg koo fay ni koy faye mooy bu xamee lim ba nay fay ba muy matal fay ba ba muy matal fay gi it nu mu ko mën rek nag duñ koo gétan ci ne ci benn bis wala ci benn jataay lay toog fay lépp ci misaal koo xam ne dafa toogoon am at dawul julli ngir ngant walla ak sàggante boo de julli yooyu mi ngi ciw loo sam nu koy faye na na nay nay fay rek ba muy ba muy matal bu xamee ñe kon xam na ne at mi nangami julli moo ci nekk am na waroom xam yu wax ne nay def saa bu jullee genn farata fay jenn saa bu jullee jenn farata fay jenn fu ñu jullee tisbaar tey fay tisbaar jenn di ko def xam na ne am na bor julli at su defee loolu at kon bari mat na su fekkee matut loolu it waaye daal xam na lim bi nay wàññi di fay saa yu ko manee mu fay ba muy matal ku mel noonu nag nga xam ne ay bori julli yu bari noonu la amee dañ koy tere naafila yu naafila yu ndaw ndawaan yi lam nara naafila na ko dugal ci bori julli ba kon lu dul naafila yu mag yi nga xam ne mooy lu mel ne jullit ayit lu mel ne ñaar rakkay fajar lu mel ne safaak wéetar yooyu moom man ngaa amee bori julli ba noppi di ko naafila waaye yeneen naafila yi ci des nga xam ne lu mel ne ñaar ñaar rakka wala ñeent yi nga julli bala ngaa julli tisbaar ak boo jullee tisbaar ba noppi ak bala ngaa julli takkusaan ak ginnaaw timis yooyu moom boo yoree boru julli dañ lay wax ne la bu ko bu ko naafila te fekk bor bu war la fa nga waroon a naafila naafila yooyu fay fa boru julli ba bu ko defee nag ba ba matal koo xam ne nag lim yore ci boru julli xamu ko nay fay di fay ba xelam dal ci ne lim julli mat na sëkk lam te xelam daal rek waaye daal képp koo xam ne bari julli ñu ngi ci saw loos fay ko dalay war noo ko mane nag nga fay ko noonu